Euh, ñu ngi ànd ak yéen ci usul yi nga xam ni moom la imaamu Malik fonde li nga xam ni mooy mazhabam bi euh, usul nag mooy jëm aslu comme niñ ko waxee woon tey ñu ngi war a ñëw ba ci al aslu arrabia ci ñeenteelu fondement bi nga xam ni mooy fukki fondement ak juróom benn tey ñu ngi war a ñëw ci ñeenteel bi incha allah ñeenteelu aslu bi moom la ñuy tuddee tanbihul xitaab min alkitaabi wa min assunna mooy loo nga xam ni alquran bu ko waxee wala sunna wax ko tudd ko nga xam ni tuddul loola ko bàyyi noona waaye dang ci dégge la mu tudd dang ci dégge la mu tuddul dala koy intibaax ñu koy bàyyiloo xel nga xam ni atte bii nga xam ni moom lay wax ak yow euh, li mu tudd rekk ci ngay déggee la mu tuddul ci ñu yem ci atte léeg sax la mu tuddul fekkee lu ñuy tere la léeg la mu tuddul gën a yey ci bàyyi la mu tudd wala léeg-léeg ñu tolloo ci atte léeg-léeg ñu tolloo ci atte la ñu tuddul ak lañu ñu tudd ñoo yem ci atte bu fekkee luy dagan la wala lu lay tere lu aram la mu demee noona léeg-léeg la ñu tuddul gën a yey ci ak bàyyi dinañ ko gis incha allah muy nekk al awla kon dinañ gis incha allah moo tax euh, ñu koy tuddee مفهوم الموافقة ولا فحوى الخطاب مفهوم الموافقة ولا فحوى الخطاب إن شاء الله مدهننا ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول ومن أصوله بقنتي جسانا يا إمام مالك allati cosaan ya nga xam ni yaquulu day wax bihaa ca cosaan ya bokk na ca mooy tanbiihu quraani mooy loo xam ni ak yeete lay doon goo xam ne yee ki muy waxal la te tuddul loola waaye la mu tudd dañ cay dégg la mu tuddul soit ñu yem ci atte wala sax la mu tuddul gën a yey ci bu fekkoon lu araam la mooy gën a araam ndax xëy na illa ba sabab bi tax ñu araamal li muy wax la mu tuddul ca la sabab ba gën a tare ca la ëppee loolu la ñu tuddee al awla bu boobaa dañu tuddee mafhumul awla wala euh, ñu nekk ñoom ñaar ñu yem ci àtte ñu ko tuddee mafhumul muwaafaqa loolu tamit din ko gis ci sunnati rasul sallallahu alayhi wa sallam ci sunna su yonte bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi ci ñeenteelu cosaan ci cosaan yi nga xam ni moom la imaamu malik rahimahullah di def xujja muy aw lay ci mbiru sharia e, nga xam ni ci la ñuy tëral ay atte buñ ko nag atte mooy lu dagan lu araam lu ñu sib e, ba mu jeex loolu nag imma mu fekk ko ci alquran wala mu fekk ko ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam تنبيه الخطاب بوبو نيديكو تودي مفهوم الموافقه لو لوتاخ نيكو تودي مفهوم الموافقه لكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المنطوق به في الحكم معنى بيغا خامني دان تي نوبي كن تودوكو المسكوت عنه دا فاي ديبو معنى بيغا خامني موي المنطوق موي لي ني واخ ني نوتكو تودوكو lan lay dëppoog moom fil xukmi ci àtte lan moo tax nag ñu koy tuddee tanbihul xitaab ndax kii lay déglu ci li nga wax ci lay bàyyee xel moo koy yee moo koy inspiré ah mu tegtaloo ci kàddu yi nga wax ci li nga xam ni kenn waxu ko ndax lu tax ñoom ñaar dafa am lu ñu dëppoo maanaam bi ñu waxul ak bi ñu wax dafa am loo xam ñoo ko ñoo ci dëppoo yam ci àtte léeg-léeg nag mu nekk bil musaawaat ñooy tolloo degré léeg-léeg nag mu nekk al awlawiya maanaam ba ñu tuddul sax mooy gën a yey ci bàyyi ndax illa ba sabab ba daa gën a bare foofa dinañ ci ñëw incha allah bu ñu xoolee li ñu tudde mafhumul musaawaat ci alquran ci tanbihul xitaab min alkitaabi wa sunna muy usul yi bu fekkente ni misaal bin la ciy jox ci li nga xam ni li ñu wax ak li ñu waxul ñoo yem ci illa ñoo yem ci atte li yàlla naan inna alladina yakuluuna amwaala alyataama dulman innama yakuluuna fi butunihim naara wa sa yaslawna saira suñu borom nee na ñi nga xam ne dañuy lekk alali jirim zulman ci ak tooñeel koy lekk teg ko ci ak tooñeel waxe lekk ñu ko ci lekk gi nga xam ne moom la sharia e, yoonal ci ku yor alalu jirim di ko saytu di ko toppatoo suñu borom nee na bu ngeen manee fegu bañ cee lekk moo gën bañ koo laal moo tax nee na wa man kaana ganiyan fal yastaafif ki nga xam dañ koo bàyyeeg ab jirim jirim bi e, yor alal waaye xale la mënula lijjanti alal ji yow mi xam yaa koy sàmmal fekkee jur la di ko topp tool fekke ay tool la wala leneen yàlla nee na bu fekkee am nga lu la doy yow yamal ca sa yëf te bàyyi ko yëfam man kana ganiyan fal yastaafif istiafaaf mooy li nga xam ni dagan na la man nga cee jëfandikoo ci sa àq waaye nga bàyyi ko loolu mooy al iffatu waaw wat suñu borom tudd foofa fal yastaafif waaye wa man kana faqiran fal yakul bil ki nga xam ni nag dafa ñàkk xëy na sax jirim bi moo ko ëppale leen ko fi bàyyi li mu ëpp moom li mu am te moom moo jël alal ji di ko toppatoo na ci bokk jirim bi di jëfandikoo waaye bu mu ko lekk bàyyi ko bu fekkente ni dépense la il faut mu jënd ndax jirim bi faaw mu lekk ah faaw mu naan faaw mu jënd yére te moom alalu jirim bi moo koy toppatoo mu yokk kooku am na àq ci jël ci bil maaruf ci li nga xam ni Euh, kenn du la ci xas te jéggiwul sa aq jéggiwul sa aq donc xam ne maaruf ku ko gis xam ne lii jaadu na waaw moo tax suñu borom nee na ñi nga xam nag dañ koy lekk nag ngir tooñ rek am dañoo néew doole seeni way jur nekkatu fii ah yàlla nee na xamal ni de la lekk ëllëg dina soppali ku nekk safara bu ñu xoolee aaya bi li mu tudd mooy euh, lekk araam dafa araamal lekk alali jirim ci ak tooñeel waaye lekk ko mooy lan mooy lekk ko day waral alal ji sànku ba boroom du ko mën a jariñoo xam nga lekk la wax waaye tey boo ko lakkoon tamit alal ji sànku na kon liñ ciy dégge mooy yàlla wax na bul lekk waaye waxu ne ah kon naa dem taal ko pourtant yàlla waxul taal lekk la tudd waxul demal nga jël ko maye ko ay jàmbur waxul nga gas ko suul mu yàqu yooyu yépp waxu ko waaye yii mu waxul ak yi mu wax ñoo bokk illa ñoo bokk sabab sabab ba mooy lan yàqi alali jàmbur xañ ko boroom bi ay wasilatin kaan waaw moo xam mooy bi bu mënti doon kon léegi doo ci dégg mukk ni yàlla lekk la wax kon leneen du du lekk mën naa nekk lépp luy taxaw taxawaayu li lekk di def alal loola day dugg ci tere bi kon ñoom ñaar ñoo yem atte loolu mafhumul muwaafaqa tey boo jëloon alal yi jirim bi nga dem taal ko moom ñàkk na ko tey boo ko jëloon tam nga dem lekk ko moom ñàkk na ko kon ñoom ñaar ñoo yem ci illa mooy itlaaful maali sànq alal ji waaw kay loolu mooy mafhumul muwaafaqa waaye am na lu ñuy tuddee mafhumul awla mooy suñu borom bi wax nii ca waaliday ya sa ñaari waajur fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman ba aaya ba jeex yàlla def la wax sa ñaari waajur bu wax mbas wala nga ciibatu leen laa taqul lahuma uffin sama gis benn xadis xamu ndax wér na wala déet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci maanaa bi mu ni bu yàlla amoon lu ëpp uff moom lay jëfandikoo maanaam lu ko gën a ko gën a néew ndax uf ñaari ñaari kii rekk la uf fin ah ñaari xarf la benn xarf bi ñu tadif ko rek muy ñaari faa yu fi nekkoon muy uf nee na bu amoon lu gën a néew loolu moom lay jëfandikoo kon euh, bëggu ci dara xool aaya bi léegi nag uff la wax mbas wala ciipatu xam nga loolu la yàlla tere bu ko wax waaye aay bi gisoo yàlla wax fi bu leen dóor seeni ñaari waajur ah kon tuddul bul dóor sa ñaari waajur waxul bu leen mbecc waxul bul rëkk waxul bul rey yooyu yëpp waxu ko uf la wax te pourtant dóor moo ëpp lor wax uf kon tere na la wax uf kon liñ la terewul moo gën a mën a lor kon loola bàyyi loola moo gën a yay liñ la tuddal moo tax ñu tuddee ko mafhumul awla kon liñ ci déggee la ñu tuddul moo gën a yeey ci ak bàyyi lañu ñu tudd ndax lor gi daa gën a bare ca la ñu tuddul ndax dóor moo gën a ëpp lor wax uf waaw ndeysaan euh, imam Papa Ndiaye yàlla na ko yàlla dool tawfiq ba mu ñu jàngal ca téere docteur Abdul Karim Zeydaan ba usulul euh, fiq euh, ca anwaaul qiyaas ya waaw xisa xiyaasul awla xiyaasul adwan duuni yeeg ya ci aju waaw xiyaasul musaawaat xiyaasul mi ngoog daal ndeysaan tubaarkàlla aay bi indi woon na ko comme exemple kon e, tere nan la tere nan la bulwax wax uf almantuq mooy lan ala tahrimi tafifi alal walidayni loolu mooy la ñu tudd kon tere nan la nga wax say ay waajur ufu aha léegi nag la nga xam ne ñoo ca yem ba far sax mu gën a ëppati illa ba ah mooy nga lor leen ci xam ni dóor la wala leneen bu ñu demee ci xadis yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci mafhumul خطاب المساوي للمنطوق في الحكم من السنة آه، تي مثال حديث كم نلا جوخن مثال القرآن تي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ينتبه صلى الله عليه وسلم أتبيم لي بغا موي لي ني اك لي ني واخول نيو يام تي اتي inna lesna yàkkuloona amwaal al yataama kon lekk ga ak lakk ga ñoo bokk atte doonta tudd ñu lakk yente bi nag moom dafa wax ni sallallahu alayhi wa sallam man ibtaa abdan fa maaluhu lilladi baahu illa an yastari illa an yastaritahu al mubtaa yente bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni man ibtaa man ibtaa abdan képp koo xam da ngaa jënd ab jaam فماله على الجامب للذي ينا كان خمني باعه موكا جاي إلا أن يشترطه المبتاع لدول كاكو جند دفكو شرطلني داي مومالي على الجامبي لولا ينتبه صلى الله عليه وسلم فإنه يدل بالمنطوق على أن مال العبد المبيع للبايع illa an yashtaritahu l mustari li yonent bi sallallahu alayhi wax ci hadis bi mooy te mu tudd ko mooy alalu jaam bi nga xam ni dañ koo jaay ki moom alali jaam bi mooy ki jaay jaam bi bu fekkente ni dafa jaay jaam bi fekk jaam bi amoon na alal jumu moom ci waxin ndax ab jaam alalam al abdu Euh, maalul abdu li sayyidihi comme ni ñu ko jàngee ci fiq ak xadis ya sax nag jaam moom amul alal li olof naan ginaar ak neram borom ginaar gaa ko moom jaam bi tey bu fekkonte ne rek am na lu nekk ci loxaam ñu di ko askanele ni alalu jaam bi la kon ki moom jaam bi moo moom jaam bi moo maale alalam léegi su ko neexee mu jaay jaam bi bàyyi fa alali jaam bi ndax kon dafa mel ni daa jël lenn rek ci li mu moom moom ki moom kii jaay jaay ko bàyyi fa la ca des ndax jaam bi ci moomeelam la nekk alali jaam bi ci moomeel la nekk bu ko neexee tam mu boole alali jaam bi yépp ak jaam ba jaay léegi nag yonent bi sallallahu lu dul kii jënd dafa tegal charte kii jaay ni ko damay moomaale alali jaam bi waaw léegi nag wa yadulu bil mafhumil muwaafiq ala anna maal al amati al mubiati musaawin li maali al abdi al mubii fi ma dukir léegi ab jaam bu góor la tudd tuddul jaam bu jigéen waaye ci mafhumul muwaafiq liñ ciy dégg ñoom ñaar ñoo yem kon jaam bu góor ak bu jigéen ñoo ci yem donte yonte bi sallallahu alayhi wa jaam bu góor la tudd kon tamit ku jaayoon jaam bu jigéen tegtiwul ni jaam bu jigéen boobee ka ko jënd day moomaale alal ja même buñ ko sartantewul comme ni ko yonte bi waxee ci xadis bale ci jaam bu góor kon al mafhumul musaawi wala mafhumul muwaafaqa ah ñoom ñaar ñoo yem ci al ci atte kon ku am jaam bu jigéen tamit boo ko jaayee yow yaa moom alal ja yow sang ba lu du nga sartante ko ko jënd ni ko nag alal ji boo bëggee ma jaayaale la ko wala sax nga yóbbaale ko nga moom ko loolu day dépendre ci moom waaye daal li ñu tax a jóg mooy yente bi jàmbu góor la tudd sallallahu alayhi wa sallam tuddul jàmbu jigéen waaye ñoo yem même atte bi ñëwal la ci misaal ci alxitaabu al awla bil xukmi min al wax ji nga xam ni kenn tudd ko te dañ koo wax waaye kenn tudd ko nga xam ni tudd ñu ko waaye atteem moo gën a yay ci atteeb li ñu tudd comme nin na ko waxee woon fala taqul lahuma uffin bu leen wax mbas wala cim ci way juri kenn tuddul dóor waaye xam na nit bàyyi dóor moo gën a yay ndax dóor moo ëpp lor wax mbas wala cim xadis bi nga xam ne mu ngi ci buxaar yi loolu dañ la ci indil misaal nag ci xadis yonte bi sallallahu comme ni la fi indil misaal ci alquran انت بخاري ينتبه علي الصلاة والسلام نينا لو دعيت إلى كراع يعني نيان كراع ولا كراع دال موغنا سيونو جانجي لا أجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلته صلى الله عليه وسلم نينا سن مووون ايوي تمتي اييل ما اونو ما اونو وايه سن ما جخون هديه تمت هديه ييل دينا كو نانغو <laughs> waaw ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam léegi nag almantuq mooy euh, ijaabatu daa'i ila karaa'in wa qabulul karaa'i hadiyatan sunnatu léegi sunna siñ ci déggee mooy bul la joxe ay yeel jox la ko kom hadiya jëlal sunna la yonte bi sallallahu def na ko donte sunna la boo xam ne euh, du sunna eh, yi nga xam ne daa bokk ci eh, baabu tashriya waaw mais sunna lañ koy tudde ndax yonte bi doxale na ko rek waaw ndax maraati bu sunna comme ni nga ko xame waaye nee na suñ ma oo woon tamit ci ay yel yi ñu togg ba pare tamit ma uyu kon loolu sunna la ci doxal léegi nag ci mafhumul muwaafiq bi ñu ci dégg wala mafhumul awlaa sax bu la neexee mafhumul awlaa bi mooy kon nag uyu ji ci loo xam ni moo gën a bari ay yeel mel ni ab pooj baat baat ya ca aju nga ko toggoon oola ca ah uyu ji ci moo gën a yay ndax la la moo gën a bari ah, moo gën a nekk sunna ci moo gën a nekk doxalin wu gën a am doole ndax lo mo upp doole euh ay yel dootu yente mom ay yel la wax bu la joxone cadeau tamit ak faar wala ab tànkub xar hein wala poju xar ñun bal ma nak njóobee ni xamna ñu ngi kontaan léegi loola moo yey nga nangu ko ko ay yel ndax mo upp njariñ كان موتاخ مونا ويدل بالمفهوم الموافق على ان ما هو اكثر من الكراع اولى بسنيه القبول واجابه الداعي اليه نك بون لاي اوي تي لو اوب اي يال ا نانغوكو مو اوب مو غنا نيك سنه ا ولا ني اولا تي مو غنا نيك سنه تي اي واو كون مفهوم الموافق فوفو ا دانكوي ديغي تي حديث يونس بي صلى الله عليه وسلم ايوا موتاخ آه، بو ديمي آه، جمع الجوامع امام الشافعي دا فاي واخ اك الامامان امام علي موم بن واخي لي جي غنا بري موي امام الحرمين اك امام رازي آه، دا فا ان تنبيه الخطاب من باب القياس الجلي فقيل من باب دلاله اللفظ nee na li nga xam ne mooy tanbihul xitaab bii nga xam ne moom la ñuy jàng tey nga xam ni mooy li lay yee li la bàyyiloo xel mooy lin wax ak yow moo lay bàyyiloo xel li nu waxul ak yow nga xam ni lin lin tuddul waxu waxuñu ko daa yem li ñu wax ay sabab yu ñuy def moo tax ñu mujj bokk nekk àtte ñu ñu mujj bokk àtte walla sax li ñu waxul atte ba sabab ba gën a baree foofa su ko defee mu nekk e, muwaafaqa wala musaawi e, mafhumul musaawi wala mafhumul muwaafaqa wala mafhumul awla e, su ko defee nee na loolu imam Shafi nee na dafa nekk ci buntu qiyaas waaw maanaam qiyaas mooy lii la ñu wax lii moo day mandilaate Euh, lii tamit dama lay jox exemple ci qiyaas comme par exemple ñu ni sàngara dafay mandilaate dafay mandilaate ñu tere ko léegi nga dem jël loo xam ni tuddul sàngara waaye moom it day mandilaate kon ñoom ñaar bokk na a illa kon dañ koy qiyaas ci sàngara bi mandilaate ni ñoom ñaar kon ñoo bokk illa kon nan ko nan ko nan ko araamal moom it bàyyi ko parce que li kii di def moom lay def donte nag léeg-léeg illa bi ëpp doole ci almaqisu alayhi léeg-léeg mu ëpp doole ci almaqis maanaam léeg-léeg illa bi ëpp doole ci li nga xam ni ba di araamal kenn tudd ko woon waaye ñoo bokk illa bi léeg-léeg illa ba gën faa baree léeg-léeg tamit illa bi gën a baree ci li ñu tudd waaw loolu tax lañu tudd qiyaasul illa ba mu jeex Eh, waaye tamit nee na waqila min baabi dalalati lafz nee na loolu tamit yenn saa yi dafay dugg ci buntu li nga xam ni eh, dan na koo tegtal wala da ko ci dégg kaddu gi nga xam ni moom la ñu jëfandikoo kaddu googu moo la moo la ko tegtal anna lafza dalla ala al mantuqi dalla alayhi maanaam baat bi nga xam ni moom lañu jëfandikoo ci li ñu tudd baat boobu tamit moo jëfandikoo moom moo tegtale tamit lu ñu tudd bi maanaa fële dañoo qiyaas illa bi sabab bi lañu qiyaas ba tax ñu bokk àtte bi nag nee na baat bi nga xam ni moom lañu jëfandikoo nga xam ne mooy tegtale li ñu tudd même baat boobu ci nga mën a sukkandiku ah mu tegtal la yu ñu tuddul moo tax mu ni boobaa fa laa yaxtaaju la xiyaas kon boobaa xiyaas du am waaw kon da da ngay am dalalatu lafz rek moo moo lay indiqué moo lay yóbbu ñoom ñaar ñoo ñoo ñoo ko bokk lafz bi ci boppam moo la tegtal lafzu bi ñu bi ñu bi ñu jëfandikoo ba tudd ci àtte bi wala tudd liñ la tere même baat boobu lafzu boobu moo la tegtal li ñu tuddul waaw kay moo tax mu ni waxtu li fa fii kayfiyati dalalatihi alayhi imam al-ghazali ak amidi nee na nee na fa qala al-ghazali wal amidi innaha majaziyatun min baabi itlaaqi al-akhassi wa huwa man'u at-ta'fif wal akli fi ayatay walidayni wal yatim ala al-a'ammi wa huwa man'u al-iza nee na bu fekkente ni amidi ak imam al-ghazali li wax nee na majaaz la majaaz na majaaziyatun waaw maanaam tajawuz mooy da ngay wax lii jëfandikoo lii mais la nekk ci ginnaaw loola nga ci namm mooy majaas euh, nee na nag dafa su ko defee day dugg ci buntu min baa bi itlaaqil axas maanaam li gën a jagu li gën a xat nga tudd ko bàyyi li gën a yaatu baabul axas mooy lan mbir yenn saa yi day nekk xaas mais ci biir xaas ji boo waxee xaas nag kon mooy lu uteek am am mooy lu lu ñëpp bokk wala lu daj kapp xaas nag mooy loo xam dafa am lu mu concerné am lu mu lu mu concerné wu wala bu ne ak nag moo gën a sewati la la mu concerné am na leneen lu mu gën a concerné wat masalan ngeen baal ma ba jël misaal ci euh, li may bëgg a wax ndax njóobee ni gën a comprendre tey moo fi amoon ay gan yu sant Jóob ñu nekk ay mag ak i ndaw ak ma am yeneen gan toog ci saal ma xelli samay kaas euh, ñëw teg daal nii kaas yi soow mi euh, njóobeen yee ko moom kon soow mi yépp jagleel naa ko njóobeen waaye ma ne nag kaas yu mag yi paayee ko moom kaas yu mag yi paayee ko moom kon bu ma nee soow mii rek njóobee niyee ko moom indi naa alxaas kon képp ku dul njóobeen bokkoo ci waaye bu mu naa nag bu ma nee nag paa yu mag yi ñoo ko moom ci biir njóobeen gi indi naa axas kon loolu moom mooy kon nag bu ñu teree tafiif tafiif nga xam ne moo gën a néew moo gën a néew ak lor ah ak lekk tamit moo gën a euh, yéex ci yàq alal comme ni nga ko waxee ci aaya bi ci yetim ah kon nag li gën a yaatu li gën a lëm li gën a ëmb loolu ci lor kooku moom kon terewaale nañ ko bu yàgg mooy al isa kon ci baat bi nga koy jëfandikoo nga koy déggee waaye du illa bi moo lay indiqué maanaam ci ñu wax ñoonu am na yoo xam ne ci baat bi nga koy déggee waaye doo dem ci illa ba nga xiyaas ko ci ndax illa bu fekkee ci illa bi nga dem da nga xiyaas lor ga waaye bu fekkee da ngaa yem ci lafzu bi maanaam lafzu bi ci boppam moom moo la tegtal ni ah kon lële moom ala rawati ok ka xam naa mbokk yi ngi jéggulu foofu la ñuy daaneele insha allahu rabbi suñu dars ñu nekkoon ci al aslu rabia mooy tanbihu alxitaab min alkitaabi wa sunna ñu koy tudde mafhumul muwaafaqa ولا فحوى الخطاب سكر فيتي مفهوم الموافقة بي دين تجيس لغا خمني موي مفهوم المساوي أك مفهوم الأولى تاني جارة بيت بي من ومن أصوله التي بها يقول تنبيه قرآن وسنة الرسول إن شاء الله لتجيبني سنتكو يالله ci dëng ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu soppi ñu ko defal ñu ko aw yiw wasalaamu wa rahmatullah